ñancoo wan leen li mu mën a ngeen di xaar ci li nga xam ni mooy programme boobee xam ni moo nar a am suba jàmm diggante Paris Saint-Germain ak équipe bi lee nga xam ni ah, moo nekk ah, Bayern Munich Real Madrid tamit moom ah, dana football ca bis boobee waaye ñu ànd ak Sadio Mané def nañ tàggatu goo xam ni tey jii eh, ci suba gi ci dernier entraînement bi nga xam ni bala ñoo soqoog ñi nga xam ni ñoo ànd ak Kylian Mbappé mi nga xam ne xiir na lool waaye nag Sadio Mané di leen fàttali ni boobee du nekk ci maa bi waaye dana bokk ci ñi nga xam ni ñooy demandé match bu àndeek dogalu borom bi kon ne ko ñëpp ñaanal Bayern Munich Paris Saint-Germain euh, deux mille vingt heures